doore assise national de la presse ya juróom benn commission ñooy xalaat boobu ba léegi ci nu ñuy def ngir gën a dooleel méccam journalisme ci biir réew commission yoo xam ni juróom benn lañu woon ñoo xam ni daal jëm nañu tënk lépp loo xam ni mooy yëf jëm si yëfu média lu toll juróom benn weer ay góor ak jigéen yu wuute liggéey ñoom ñooy xalaat ngir gën a mën a jëmmal méccam journalisme parce que du waa média yi kese ñoo toog tëju ne nañ ko def suñu diggante dëgg la waa médias yi ñu ngi ci woon mais dañ ko tijji bi ko si ñëpp si force de sécurité yi si ay experts si ñu am yeneen xam-xam si société civile si association consommateurs yi si ay politique suñu nekk. commission yi def seen restitution gannaaw ba nga xam ne ni pare nañ liggéey. dina am ñoo xam ne dinañ ci am luñ ci yokk day am peut-être ñu ci wàññi mais suñ ko jëlee ba tënkoo ba ne lii la ñu bëgg mu ne mu doon si lu jëm si yoon lu jëm si ñu ciy liggéey ñu jëm si économie bi maanaam koom bi ñu jëm si publicité bi. jëm si euh, établissement public yi naka la war a taxawee. recommandation bi dina tax ba ñu gën a mën a dooleel bii la liggéey. candidat yu nekk présidentiel ku ñu retenir ñëpp dañ leen jëm pour mu am ay engagement moo xam ne dañu am yu clair yoo xam ne dañu ko wax ne man su ma falee ëllëg lii lii lii ngeen wax nii nii dinaa ko doxal parce que euh, tamit bon secteur yu nekk ñëpp a ngi bougé tout. bu ñu sukkandikoo ci CAP objectif yii la assise mooy saytu. jafe-jafe ya nga xam ne ni moom lay jànkonteel ngir mun koo jooyanti ba mu doon liggéey bi nga xam ne ni koom bi dina ci am solo nañ ci liggéeyee dinañ ko xoolaat dina bokk ci luy dëgëral démocratie ci biir réew mi waaye it taxaw temb ngir jàmm ak salaam bëgg sa réew ak jàppalante sax fi dàq